Euh, jàngeen jëf euh, rafet laan di baax Sen TV talaata kon fukki fan ak ñaar ci weeru mai sept heures taftal na kon fanweeri simili ak ñaar du ñàkk nag euh, lépp yemb na toog ngeen ñi nga xam ne nag ñuy nekk ci wàccaa la ngi dem liggéey donge sax di waajal ngir nag dem bi ngeen di teewoo ci wàllum information ma ci yaa ndax yaa lay jox talaata bi yow gi baax mi yëpp ak yëpp amul kay waaw waaw mu jëlee kay. Mm. waaw waaw waaw. ak kay bariwul bi. non non non démb moom maa ngi woon. Euh, mm. maag sa waay. <laughs> non géej ñu ngi woon biir géej waay rek. nekk géej waay rek. waaw moom nag ñun fu ñu jëm feneen. ah déet yéen a ngi ciy nekk lañ bokk nag. non ñun fu ñu jëm. moo ma jaaxal. ay représentant la ñu am kay. ku ci nekk kay séeréer fa nga fa ngay waaw loolu foofu côté boobu nag la la kii nelawee la bees nelawee. décentralisé. waaw décentralisé nañ jox nañ ko nee nañ ko balbaangal. bëriwul hmm. ñu dem mais il dort. nelaw. na yaa ko tane de. ah waaw ah yow de lu mu bon bon yaa ngi si programme bu rëy ngir daal euh, euh, fële. Tëngéej waaw euh, canal ba ak yeneen ak yeneen mais bon. moom daal ba léegi. waaw moom daal mu ngi noonu daal waaw moom daal sa waay boo bëggee dégg dëgg waaye mën see ñàkk waaw xam nga nag waaw du nag yàlla njaboot waaye xam nga tam booy woote tam da ngay njaboot ku nekk ñëw Pape Bess daal moom daal sa waay nañ ko daal waaw waaw moom daal mu ngi noonu ci kaw gàttal voilà fajar ñoo leen def bu ñuy ci wàllum information muy muy kaay xëy ñu ma jukki faram fàcce ko jàppandi la tribune la xëy fësal Macky Sall day président la ay ñoñam ne ko. na dàq waa LD ak waa PS. Macky Sall waaw. na dàq waaw waaw waaw waaw waaw waaw waa PS daal. Hmm. ak waa LD. waa gauche. waaw ñooñu daal sa waay. na dàq LD daal ñooñu noonu parti waa bi mooy dama tudd ko koy toog ne Dakar hmm. la moom daal. Hmm. ak PS. ay nee nañ leen leen dàq maa mbay. bu leen metti parce que kàddu yi ñuy yëkkati di ko jagleel le président de la république. moom la ñooñu président jàpp ne jekkul ay sortie inélégante la. ñoom daal nee nañ kon mënuñoo ànd ci kàddu yooyu noppi ñu lëkkalu. jekku genre opposition kàddu opposition. parce boo nekkee sa génération ba pare du ko tenir. Hmm. looloo waral ñii ne nañ leen yàq maître Djibril War nee na. Hmm. gis nga su président gaawul ne yëngu mi ngi gasal boppam bàmmeel. waaw. mi ngi gasal boppam bàmmeelam. lay xeeñ lay lay xeeñ ñeexub. ok ah, waay Aimé Assane vice président la. Mhm. nee na xam nga tam vraiment ay balu fetal wala ay fetal ngànnaay kenn du ko jël mais du ko jox yow sa noonu. sa noonu waaw ah mais koo xam ne yow sa noonu. non attends ñoom kay ñu jàpp xam nga mooy waa ji comme que di nga samp ndënd. Hmm. ah nga yëkkati da ngeen di bëri jëriñ. waaw na dem nga yëkkati say say cumbukaay ak. naka am téye say lekkat say lépp. ne ko am téye ak say saafara ak tout ma. waaw kooku boo leen demee ca làmb ji nan la nar a dem. moo war a jàkkaarloo Macky moom ñoo gën a yegg ñëpp ñoom daal ñoom moom lañ xam ne mooy ñii daal dañoo war a wàcc gaal gi quoi dem xaar. na dakk le populaire le populaire ñëwoon ñun ci Alioune Sall. Mhm. xam nga fal nañ ko ginnaaw bañ ko falee njiital AMS. kuréel gi njaboote maire yi fal nañ ko tamit mu jiite élu locaux yi. waaye fali nañ gi nag. indi la féewaloo seen biir. moo jiite ñaar yëpp. waaw parce que ñi nekk ci département yi am na ci ñenn ñoo xam ne d' accord wuñ ca. ñenn ñi waaw. Maodo Malick Mbaye moom ca benn dëkk ñaari gaar. directeur général. waaw moom la mu jàpp mooy lan moo tax ba pale moom Alioune Sall bi ñëpp ñu pat. ah da bëggoon yooyu ci yàgg. ah eh. loolu la jox ñëpp ñu pat. Mm-hmm. parce que rek président mm-hmm. la. loolu la wax. <laughs> te góob ma de nee na parce que rakku président. nee na parce que rakku président la. Hmm. bu tëjee ne ah non non non non. mënta loolu raison pour nit ñi bañ waaw kay yéeg nañ ca daal en tout hmm, hmm, waaw moom sa sa sa laas ba sax naa ci dellu saa Maodo Malick Mbaye. Ah, waaw expliqué na lan moo tax. d' accord Aliou falu. ci poste bi si laas lay ñëw. waaw boobu raat baa nga ndar ba léegi. ba léegi waaw baraayaa daal la muy naqarlu daal mooy salte ga ñàkkul kaaraange gi xam ne daal moo nekk ca ndar géej Saint-Louis du Sénégal. Hmm. Ahmed Fall baraayaa daal yore na Mansour Faye ba ca boppam la doon ŋàññ. xaya di dafa waaw jàpp na xaya di la ba pare ñàkkul kaaraange ba ba mardi taali. réew mi quotidien nag daf doon tey ci parti socialiste. am parti la boo xam ne maanaam dañuy calculer. waaw ah. di calculer te PS. nee nañu PS ci boppam ñoo xamul wan tànk la ñu feccee. mbaadu parce que à part à part Khalifa Sall. ab leader charismatique woo xam ne ab leader njiit loo xam ne daal war naa mën a samp ndëndam nit ñi daal gis ci moom am kilifteef. kon daal seen ak pecc amul ak daana. waaw kay. Mhm. dégg libération libération ñëwoon nañ mhm. moom la ñoom Toussaint Manga doon sakku. waaye la ca doy waar dëgg mooy bi daal doyen des juges daal xam le na ne maanaam këyit boobu daal moom mënu caa yéeg yàb bi daal irrecevable waaw waaw waaw coowal Aziz Ndiaye ak Salbe Ndom nag mhm. procureur mujj na caa dugg mbaadu waaw Salbe Ndom waaw Aziz Ndiaye waaw mujj na caa dugg euh, libération ñu ci lu doy loo xam ni libération laa wax mhm. en France waaw benn xam nga nag démb la woon bisu rastamaan yi ñoom Pape seen bis bi démb la woon. Ah, ah, ah, waaw waaye nag daf ci am benn rastamaan boo xam ne njaayeen ci roppalaan bi. Mm-hmm. moom daal la doon doxee moom ay simekaaleem. si si si roppalaan pour jëmmal bés bi onze mai. <laughs> rastamaan léegi déggoo ma de moom kay journal bi nee na lii ku leen ko nettali doo leen ko jot. insolite la ko tuddee. moom daal foofu foofu la ko anniversaire. muy nii moom daal fa la ko anniversaire moom. moom daal moom war na suma kaaleem. xëcc ay joint yéegal niveau bi. ba ci roppalaan bi. roppalaan essence non fumeur la. waaw kat am na koy def di ci jox. moom moom xanaa tux mii nii gars yi mooy bañ a tudd ñu tux sax kenn du ko fi tux kon lu ko fa tuxee. asamaan sima. sima. moom Cheikh li ko doon xëccee. sima kaali. moom daal saa mooy loolu. Le Quotidien ñëw ak ñun tey. Mame Mbaye ci affaire bu grave a grave. loolu fan la. boo ko liiree da ngay mujj yéemu. Mhm. Giaba ñoo def benn ak Gafi ñoom ñoo def benn rapport. Mhm. ci affaire terrorisme. gars yi fan la ñuy jëlee seen xaalis ak yooyu. fu ñu koy jëlee. <laughs> yàlla moo ko wax nit ñi bàyyi <laughs> ñu ñuy jaadi. ñu ngi tës la pas la. ngir yàlla dañuy wax noonu. mastata ak Boko Haram bi ca Nigeria financement yi. ci sarax nee na da ngay génn fii yor sax xaalis. ñu mën a toll. Hmm. ay mille francs la mais mu jige ay millions lay mujj jur. ngay saraxe ngir am ca àjjana wala am ca yàlla. mais ndekete. yaa ngi kàttanal. yaa ngi kàttanal wàllum terrorisme. bokk na ca fa ñuy jëlee seen xaalis boobu bokk na ca fa ñuy jëlee seen xaalis. yéen waan ji nga xam ne moom la ñu ko fii ci Afrique sowu jant. maanaam ci kaw gàttal dafa mel ni kon. ñenn ñi nga xam ne dañ leen di yelawaan loolu ñoom ne xas ci mu dëkk bi. ndekete. keese la jëm. kon daal lu ñu fu ñu xëy ah, mais dafa naan ne yow xanaa xamoo yenn saa day dox. ah ok laajoo ma oustaz ba sama koñ xanaa. waaw ah. ah oustaz dañ leen dafay ay weeru dee ay douze mille kii diine ngay ci kër gi di dàngale. kese mu xëy kenn daanaka ñetti weer daje borom kër ga waaye ne ko oustaz bi dafa ñëwatoo mu ne ko damaa ñoom yelawaan gi ñaari fan rek. xam naa ndekete foofu la dox bëccëg junni bëccëg junni gën a gàtt laa bu génnee dépense sama passé ba lépp dana dese junni dugal ci condamné moo weer deux cent cinquante mille ah, ok loolu doxul ah, dox naka par rapport ak ku doon dox douze mille douze mille <laughs> des mi de ba maa moom damay mujj ci kaw tali bi laay mujj léegi <laughs> léegi nag journal bi xam na ne bokk na ca fa ñu jëlee seen xaalis yoolaan bi bastataa jooju ngay joxe ngir am àjjana day hmm. ndekete yaa ngay kattanal ci jël lenn wàllu wàllum tourisme waaw grand place moom ñëwoon nañ ci aju màkk gi hmm. moom bés yooyu mën seen la nee ay jafe-jafe am na xaat si aju màkk gi te dara xewam bu weesoo vingt cinq septembre képp koo xam ne ñëwoo bindu jàppal ne tardé nga angaar ba nag ren nee nañ ko fan lañ

d'accord te kat ndekete kat gis nga fraude gi tappale ci ne mu ngi tàmbali ci nguuru Abdoulaye Wade la tàmbali. ah waaw. ñoom ñu ngi di leen jànkuwut ay ñoom am Suzanne Camara ak ay Soumar Rock ñoom ñëpp nañ ko weddi ba tëdd ci suuf. ah weddi nañ ko ba tëdd ci suuf. la Soleil yéen a kaay ñëwoon ñun ci. examen yi danañu ko amal boobu wala duñ ko amal en tout cas daal gars yi ñu ngi ciy càmbar. ba léegi nii. réaménagement du calendrier eh, eh, scolaire. kon ba léegi day wóor. waaw ñu ngi moom daal ñu ngi ci ñu ngi ci waxtaan daal. ñu ngi xool waaw ñu ngi ci waxtaan daal. Sud Quotidien ñu ngi ci waxtaan. ah ginnaaw nag njàngale moomu grève ba jeex na. wàllu wér gu yaram waa SICSAS. talaata fukki fan ak juróom-ñeent àllarba ñaar fukki fan maanaam semaine bi ñëw dañuy grève ah déet waay. waaw hôpitaux yi kay nee nañ dañ koo fas yéenee takkati mbel de bu dem bu dikk. waaw kay laas moo wax lan la nga xam ba que nee na gis nga gis nga lii bu ñu am Aliou Sall jël ay poste rek di ko rangale gis nga xam nga fan la jëm. vice président Sénégal la jëm. fan la jëm de. waaw Maodo Malick Mbaye nee na bu ñu ko waaw ñun Ousmane Ndiaye aussi nee nañ trop de pouvoir trop de front trop c'est trop. gis nga gëstu amul njëriñ yi ñu porté yu bëri bëri bëri yi ñuy dajale ci kawam da koy yokkal ay noon rek. yokkub coono yokkub coono yokkub noon. Mm-hmm. ba pare te du ëpp laa mm-hmm. dégg la série kaay ñëwoon ci suñ télévision yi. 2STV ak LCS. Mm-hmm. Sen TV TFM. RTS RDV. Africa FM Walf TV. mais nee na gis nga télévision yi man bay dañuy gën di xëy ñuy gën di tuune niveau bi di gën a wàcc. Mm. dara. laa sa wax loolu. waaw télévision yi même programme qualité bi baaxul. programme leen rey. na leen programme rey jaara Sénégal yi jam nañ sax baaraamu Touba waa TFM ak ak ak waa 2S. 2S ab politicien moo fa wax lu waxul ñun. kàddu sax. nu mu ko neexee TFM ab ci émission saaga animateur bay doon def wareef. ak ndaw sa saaga ko góor ko. lii ñaaw lenn daal promotion xam nga lan la ñu xamul dara ñu dul traité. jël leen teg leen ci kanam. promotion mbon promotion ngama di insolence. ñun daal laas daal fi mu jëm tey. benn waaw waaw jàngat waaw tey mooy yéen kaay la ñëwoon nañ ci Moustapha mhm. la fas yéenee teguwaat. yooyu yëpp daal dellu si waat na ci buy jëlee ci tribune sport nee na dana daanaat Ama Baldé. nee na dana daanaat Ama Baldé. dana ko daanaat waaw mais seetlukat yi ci làmb moom. ci mhm. populaire. Mhm. gis nañ ne Ama Baldé nii. boo sàgg ne ñu mujjee làmb ji. dara du ko téye de. déggoo ma daa mel dara du ko téye de. ama mii. dafa nekk ci yoon. ah. ama yee. <laughs> ama yee. Ah. boo sàgg ne day mujjee mooy mujjee làmb ji de. ah loolu la seetlu ko tey wax. ñoo ko wax waaw. Hmm. ñoom ñaar ñooñu nag am na ci kenn koo xam ne moom laa invité tey ci tës bi. tey jii nii. waaw du ma du ma wax turam. kon xaaral ñu ñëw def. ñoom ñaar def journal bi rek. waaw kay. ñoo def waaw ñoom ñaar ñooñu am na koo xam ne invité naa ko tey ci tës bi. bu subaa tam nga invité waat keneen ki. keneen ki waaw kon tës nañu tey tey tey tey. incha allah gan gi foofu waaw ñoom ñaar ñoom wala Gouye Gui. waaw bëgguma ko fay wax surprise daal. waaw ah, bu tax gars yi gars yi ba pare. mais doo ko dem. man daal maa ngi dem. waaw <laughs> euh, si kanam tuuti rek ma dikkaat fi jukki leen xibaar